Euh, ba Cheikh euh, comme ni ñu ko waxee rek tey moo fas yéene ànd li nga xam ne mooy diwlinu ñaan yi euh, pour plat du jour bi ma andi tey Ba Cheikh commencé woon naa ci li nga xamante ne nii mooy dagg li nga xam ne mooy oignon bi ak poivron rouge bi gis nga ni tey dama ko râpé rek pour am ay fil lamel su ko defee nag ñu daal di tàmbalee ñëw defar li nga xam ne mooy euh, plat bi bay Cheikh déjà ni defar nañu oignon bi dagg li nga xam ni mooy euh, suñu oignon ak euh, poivron rouge bi déjà nii damay ñëw directement daal di teg li nga xam ne mooy sama poêle ñaam daal di damay ñëw rek euh, Baye Cheikh teg li nga xam ne mooy euh, poêle bi ci ci gaz bi daal di euh, jël li nga xam ne mooy sama huile ñaani moom nag comme ni ngeen ko gisee nii am na ci bouteille yi am na ci ay dosette tey nag bouteille bi laa utiliser gis nga bouteille bi dafa dafa neex a utiliser damay ñëw rek directement daal di ubbi li nga xam ni mooy kii bi c'est sécuriser da ngay dindi bouchon bi ci kaw ba pare doogay ñëw def li nga xam ni mooy huile bi déjà gis nga nii huile bi dafa nekk euh, benn huile boo xamante ne ni c'est riche en arachide euh, gis nga ni Baye Cheikh bu ma defee huile bi ba pare <laughs> su ma defee huile bi Baye Cheikh damay yokk gaz bi moom euh, pour defal li nga xam ne mooy sama poulet croustillant yi ma indi tey. gis nga ni diwlin bi comme diwlin bi comme ni ñu ko waxee du way tu fuux te du lakk nii damay bàyyi euh, ci gaz bi mu tàng tuuti pendant ce temps nag am naa fi li nga xam ne mooy euh, fond de poulet bi nga xamante ne ni moom laa andi tey euh, poulet bi nag moom laa def fi mu am ay am li nga xam ne mooy persil coriandre am tuuti herbe de province ak sel ak tuuti poivre fond bi nag moom laa bàyyi fii accompagnement bi lii lay doon tay euh, petit rond mooy naajo gis nga ni naajo yi dañu ko baxal baxal ko ba mu ñox ak un peu damay ñëw directement def ko ci li nga xam ne mooy euh, mooy sama fond bi voilà lii mën naa ko teg ni moom nag de temps en temps ma tourné ko day nekk benn accompagnement moom tamit bu riche boo xam ne légume lay doon voilà moom mun naa ko bàyyi ni à dama wàññi gas bi mun naa ko bàyyi mu mijoté ci kanam ma dindi ko def oignon bi fii nag ma ñëw ci li nga xam ne mooy poulet bi nga xam ne poulet croustillant bi ma andi tey tey nag dama andi li nga xam ne mooy euh, cox cox bi nag moom laa nara pané li nga xamante ne nii mooy euh, <laughs> waa <laughs> xamoon naa ni su ma nee cox ñu bari dinañ ci bàyyi xel gis nga nii cox bi moom laa andi gis nga nii lii benn produit la mado bu bio mën nga xool. lii nag moom laa nar a pané merci moom nag laay pané li nga xam ne mooy euh, poulet bi dafay am benn aspect bu croustillant ci kanam euh, mado gis nga nii rek mën naa ñëw commencé li nga xamante ne nii mooy euh, panure bi jegele poulet yi mën naa def fii li nga xam ni mooy nen bi voilà gis nga nii rek waaw Madou loolu moom dina ma dina ma neex voilà gis nga nag euh, bu ñu defee noonu directement mën naa ñëw jël li nga xam ne mooy oignon vert daal di sotti fële bàyyi ko moom muy ñor nànk mhm. voilà nen bi nii baax na nii Madou merci voilà damay ñëw jël li nga xam ne mooy euh, cuisse de poulet bi mën naa yokk sama sama gaz c'est grave Madou voilà ma jël poulet bi daal di koy jàllale ci li nga xam ne mooy nen bi ma daal di ñëw ci ko doon def ak pain bi merci beaucoup cox bi nag euh, moo koy remplacer voilà. <laughs> gis nga nii directement ma ñëw nag fii amoon naa fi sama huile ñaani bi nga xamante ni moom laa taamu ci sama biir waañ ndax dafa baax ci sama wér gu yaram gerte gi fii lañ ko bàyyee ci biir Sénégal gis nga nii rek. te mais euh, dëwlin bi du way. bi du way du lakk ma doo te du fuur ñett yooyu yëpp du ko ci def benn dañ ko enrichir ak vitamine A. gis nga euh, déjà nii mu ñëwaat continuer même chose gis nga nii am na tamit ay dosette loolu bouteille bi la dosette yaa ngi nii un quart de litre la moom nga xam ne bu la neexee doo fi nekk di mesurer da ngay ñëw rek ba ne directement voilà gis nga rek ñu continuer rek ci panure bi voilà ñu yeggali bee nag mën naa ko yokk comme sa mu pare en même temps gis nga nag euh, def naa trois cuisses ci biir pané ko ak li nga xam ne mooy cox bi ak euh, tuuti nen moom laa remplacé ak li nga xam ne mooy euh, saplure bi déjà dañuy ñëw fomp suñuy loxo ba mu kii ñu daal di ñëw yeggale li nga xam ni mooy suñu potiron yi mooy naajo bi gis nga nii bu ñu ko bàyyee nii ba nga xamante ne nii ànd na ak fond bi dañuy ñëw jël tuuti fromage daal di ko ci sotti tuuti parmesan lañ ci def nga xam ni moom tamit dafay gën a am bu voilà gis nga nii rek soble bi soxlawuñ muy ñor noonu trop euh, mën naa jël li nga xamante ne nii mooy oignon bi ak poivron bi moom ma teg ko nii à côté bàyyi ko mu ñorandoo ndànk ak li nga xam ne mooy potiron yi ci kanam tuuti cuisse yi pare ñu daal di koy génne jàll ci li nga xam ne mooy euh, dressage plat bi gis nga ni huile bi boo ciy togg rapidement rek boo tourné rek gis nga dalay jox euh, benn dorure bu rafet poulet yi day croustillant ci kanam te du am benn euh, aspect boo xamante ne nii dina kii dafay neex a parce que arachide bi dañu ko enrichir ak euh, vitamine A bi voilà gis nga nii rek mu jox la dorure bu rafet ci kanam tuuti ma génnee ko yeggali li nga xam ne mooy panure bi Baye Cheikh ci kanam nag ñu daal di génnee poulet bi potiron yi nga xamante ne ni def naa ko ak fromage bi ak li nga xam ni mooy fond de bi ma amoon ak oignon beeg yooyu ci kanam tuuti nag ma dressé sama assiette ñu daal di jàll ci dégustation bi Baye Cheikh. voilà donc on va déguster.